doon liggéey jóge fa tey nga ber sa liggéeyu bopp loolu yëpp dëgg la mhm. mais xam nga parfois dangay nekk ndaw nekk fenn foo xamante di liggéey jox lu sa ak affaire yooyu noonu mhm. nga dem ber sa bopp yaakaar ne soo sa bopp ni si génn mhm. foofu tamit gën a métti parfois si jënd bi parfois dangay jënd jënd kees bi da jël ay quatre vingt mille imagine kees bi jël quatre vingt mille si est ce loolu ni si mën a wax ñu fere ñëwagul tamit fere yi fere trente mille ñaata la bëri loolu day bëri te ap nga nga bëgg nga bëgg see nga ah, bëgg see faj sa aajo yi parce que loolu dina mën a nekk. Mm-hmm. saako soble dèjà mi ngi jar ay saako soble dix mille. Mm-hmm. pomme mi ngi jar douze mille. Mm-hmm. fere yi métti na métti boo xamante ne mënoo xam. après sa jaay bi ñu ñëw di la si buntu xatal affaire yooyu noonu mairie bi ñu la nangoo bàyyi nga toog jaay. affaire yooyu noonu. parfois da ngay dem jaay ba jënd lépp lu nga jënd ba pare teg. ñu ñëw fekk la foofu jël sa bagage yóbbu ko te xamuñu ne na nga wax amee. man kay bi mooy ñaata xaw ma bi may ñaata yoon ñu jël sama bagage di ko yàq. te hmm? loo xamante ne sama sama sama sama sama ñàkk laa ko liggéey kenn mayu ma ko. Hmm. mais est-ce que bi ngeen fay toog jaar ngeen ci ñoom aviser leen xaw que ba ngeen bëgg barab sang wala ngeen tëb tëb rek ngeen ñëw toog foofu loolu aussi est-ce que tamit du loolu moo tax wala wala ñoom am na benn communication d'abord bu am entre yéen ak ñoom. non loolu sax loolu moom sax loolu sax c'est normal tam ñëw foofu noonu xam nga ni tam balaa nga kaa jëlee ci loo xamante ne du yoon hmm. da nga ko ba pare si hmm. loo xamante ne nekk ndaw xale bu boo xamante ne day liggéey yaa ngi dégg lu nekk hmm. yaa ngi dégg wax bu nekk balaa ngaa jël bagage jàmm da nga ko war a ñëw prévenir waaye ñoom duñuy prévenir te boo demee fa di la wax ne euh, da nga bëgg ñu jox la carte pour ñu bàyyi la nga liggéey foofu danga naan la non non lay wax mais si biir non non non bobu non nit soko beugé dem jëlee fenn fo xamanténi fumuy fu bëgg daan doolem nag mm. war nga am foko wara war a ko fofu non mm. si xalé bo xamné dafa bëgg liggéey mm. té yaakaaroon ci lool té am ay parents am ay soutien de famille yooyu yëpp ci la dama koy remercier d'abord vraiment di am fierté ci mom ndax buñu gisé xalé bu jigéen di gor gorlu pour mën ci génn daan dooleem dundé ngorom mëna fagu ñu gis à côté yeneen xale yu jigéen yoo xam ne ay moromam lañ di def naka su dul noonu di am alal. Mm-hmm. am ñoo xam sax dañ ci yegg ba def promotion canapé. Mm-hmm. moom mu bàyyi fi loolu lépp bëgg daan dooleem. Mm-hmm. te xam nga Abdou jigéen ñi li ñuy sonn nii ñëpp pour indiwaat ko ci kër gi la rek. bokk la góor buy sonn góor buy sonn day taxawaalu ji après. la muy am du ci sax jox soxnaam du ci ko yóbbu këram. da koy taxawaalu ci ñii dañuy góor góor di daan seen doole. pour mën a autonome. mën a dem parce que kër yi léegi yi presque ñoom ñooy mottali fay courant bi. ñooy mottali fay ndox bi. scolarité xale yi ñoom ñoo ciy jàpp. yooyu moo tax ñoom ñuy sonn. dëgg la loo bëgg liggéey bëgg liggéey tam dafa am yoon. waroo ñëw fekk foo xam ne fii yoon dafiy tere. nga teg fa. foofu yoon da lay daan. mais luñ leen mën a dimbalee ñoom. très sincèrement ñi dimbali leen ci jàppale leen ci man loolu dama lay féliciter encore parce que man yéen laa àndal mm. man Sénégal yëpp xam nañ ne jigéen ñi nga àndal waaw Maktar waaw waaw diko diko di bu baax abi donc euh, diko ko jaajëfal aussi tamit ndax daan dool daan doole rek mo moo wóor mm-hmm. mais kaw euh, déguerpissement yi dafa nekk loo xamante ni daf ñoo dab man mi di wax ak yow bu ma nee déguerpissement moo ko gëm. Mm, parce que dañ ma place. location et vente de véhicule euh, euh, entreprise bi ngi tudd décideur automobile mm. xam nga oto espace mm. ma deux mille dix neuf mille vingt dugg deux parce que au début dama ko dem ci mais par la suite je me suis rendu compte que

mooy lan en mettant des places des zones d' yo xamanteni xamante nit ñi danañ fa mën dem di fa mën a suturlu duñ fa am ben problème comme tay jii euh, li xew fépp bu ñuy dagg duñ sóoraale kat yi mhm. Sénégal bu ñuy dagg ay ki kër rek lañuy ñuy xalaat mhm. kër rek lañuy ñuy xalaat alors que mhm. kat yi dañ leen wara war a mais d'œuvre bi quoi mais dañ leen wara a dañ leen wara ah. programmé wal wala dañ leen wara a xalaat parce que ñoy ñoy yore économie réew mi parce que tay jii bo daggee cité cité bi amul fu ñuy jaayee jën amul place mécanicien amul sax oto fu muy gaare amul hôpital mais tey laa démb laa dégg ne Kër Massar ñaari poste de santé moo fa am département Kër Massar amul hôpital mais loolu c'est grave. c'est grave Kër Massar la poste yëmbal benn bi yëmbal la benn bi Kër Massar. ah bon amul ah, hôpital de niveau de de de ah, ah. hôpital bu mag. Hmm. hôpital bi tax ñuy wax hôpital Kër Massar la ñuy wax ah. hôpital centre de santé la. Hmm. xam nga loolu si catastrophique ah. bu ñuy dagg kër rek la ñuy ah, xalaat alors ko war nañoo xalaat hôpital mm-hmm. war nañoo euh, xalaat li nga xam mooy espace de loisir mm-hmm. war nañu xalaat espace yi nga xamante ni fa la ñuy nit ñi di exercer seen i métiers yi mm-hmm. uude bi yaa ngi koy xeeb waaye bu sa daal daggee nga xam njëriñam au cafétéria bi yaa ngi koy xeeb waaye bu ñu la diggalee ndomba nga xam njëriñam <laughs> euh, tëgg bi euh, so kii ci nii yaa ngi koy xeeb waaye bés bu sa tin bënnee nga xam njëriñam donc yooyu dafa nekk ay métiers yoo xamante ni dafa yore Sénégal nee leen gars yi ba ñuy def déguerpissement bi état bi daf na leen faut faire très attention mbaar moo fi gis kër la yore Mhm. table doo fi il faut faire très attention avec ces dégrétissements man man je ne suis pas d'accord accord je serai jamais d'accord accord nañ leen defar ay mesures alternatives yo xamanteni ni dinañ mën soulager population bi mo gën ñu len di jël di len buntu xatal wala parce que ben sénégalais war ko sonn biir Sénégal ndax sénégalais dañu dañoo sen seen mhm. sen ñak sen alal sen bakkan pour que ñun ñu mëna a falu étranger yi ñu nañ si yaatal bi Sénégal mhm. man fi ma ki ma ki denda bu ñu ñëw bi ñu ñëw di la bi ñu ñëw di la jëkkati du ñu du ñu jëkkati étranger bi yow mi sénégalais ñu jëkkati mu am discrimination quoi. waaw ñoom moom dama leen a yërëm ndax euh, liy wax yàlla na leen yàlla yërëm. Hmm. xam nga Sénégal soo xoolee ni muy ni ñuy dundee wax naa ko état yoru ko ay sénégalais ñoo ko yor. Hmm. soo xoolee tey ñi nga xam ne ay fonctionnaires yu lañ lu néew la ci Sénégal. Hmm. waa ki nga xam ne tey comme moom soxna si tey. nga xam ne moom li mu taaba bu dee taabal la moom la yaakaar bu dee benn kopp bu muy gàddu moom la yaakaar hmm. même boo ko dee dindi nekk dindi fa mu nekk hmm. waxtaanal moom hmm. man dañ ma dénk man sécurité laay def dañ ma dénk benn immeuble parce que chef de station sécurité ñu dénk ma benn immeuble sama élément nekk fa ñu ne ma naa dindi ñiy jaay verre nangam nangam yépp ci bunt bi bi ma ko borom waxee ma ne ko waaw ma jóg dem ci ñoom bi ma demee ci ñoom ma ne leen fii de dañ ma koo dénk ne naa leen fi jëlee aw mën a xolu jëli leen fi ndax xam naa ne ku ne yar kër ngeen yor mm-hmm. mm-hmm. mais dama bëggoon ngeen puus ba jegeñ tali bi man ma dem waxtaan ak borom kër gi bi ma demee ma ne ko li ma dénk de xam naa ne dëgg na sa kër la mais ñii dañuy daan doole li nga yor a ëpp fuuf mën nee na fay juróomi yoon te ñoom lii ci lañu yor seen kër est-ce que duñu organiser wu nga xool na leen organiser ñu nekk benn côté nga bàyyi leen mm-hmm. mais daf ma nangul ne ma li nga wax dëgg la naa leen bàyyi ba essence ñu koy laa biir biir ak yeneen ak yeneen parce que dafay am da ngay gis loo xam ne waxtaan waxtaan dafa am solo consensus doo ko fekk ca la muy tedd mhm. yor ca këram mhm. nga ne man d' accord fi muy jaay sax baaxul mhm. mais comme li kii wax bu fekkee ne amuñu marché amuñu fenn fu nit ñi dajaloo pour def activité. mais fi nit ñi jaar lañ koy teg. te te ña te ña sax ñoo jënd si loolu. c'est ça que ñoom bëgg nañ ko. parce que li mu wax nii dama euh, wax ci benn ah. émission bërki dem dama wax ci émission bërki ah. dem ma ne leen xool leen man bu dee Pikine gi ma dëkk ay ndaw fa nekk man sportif la mais benn lii bu sportif am amu fa. Hmm. léegi kooku nu mu a def ci école yi la dem. mooy comme man ni ma nekkee ci école yi. waaw ñi ngay formé sa waa école yi. ci école bi nga mën a dem pour former leen. Hmm. donc te loolu moo malheureusement Ali avant muy dem waroon nga ko wan benn démonstration. waaw Ali sama sama sama xarit <laughs> même ah, ni ko non non Nicaragua bi ngay gis nii ak géej gi nii. mais ñi dëgër pire dong la. da ngay liggéey doo am foo liggéey sa hmm. xol jeex. nga ne naa dund mbaa ma. Euh, ma dee peut-être dañuy mu sama xarit yi bëri si géej ah, ah, bi jaar. sama xarit yi bëri si géej jaar Abdou barke Seydina Muhammad loolu tax moo wala fii quoi pour dalal sa xel nga toog ci réew mi tamit liggéey ngeen toog liggéey gëm seen bopp bëggoon naa dem ndax bu ñu dem sama kanam la bëggoon naa ah, dem bul dem bul dem xam naa ne mer nga lool mais dafa métti daay dafa métti euh, en tout cas en tout ñi ngi ñaan euh, mairie bu Grand Yoff ñoom jigéen ñi ak mboolem ñi nekk foofee au niveau des deux voies Liberté 6 euh, jàkkaar ak Pentola Euh, bu ñu leen mënee euh, wutal fenn wala bokk ñu mën leen encadrer foofu parce que foofu aussi am na espace boo xam ne war nañ leen ci mën a euh, toppatool barab bu ñu mën a toog parce que aussi li ñu jaay guddi gi ay reer la ñuy jaay te ñuy jaay ñëpp ñooy ñu dëkk ci koñ bi mm-hmm. dañuy daan seen doole sàcc ñu woyaanuñ defuñ dara je pense que loolu aussi bokk na ci li nga xamante moom moom la sunu invité maxtar wax sànq ñu fexe ba daal bàyyi xel nit ñi lañ yorete ci la ñuy tedd parce que bul xeeb kenn Euh, manam ki gàddu café bi sax bu ko xébal café bu amaana ci la am soxna amana ci lay joxe dépenses mais li am solo moy euh, moo tax financement yi d'où l'importance moy ñu financer les activités j'ai j'ai toujours l'habitude et je ne sais accès au crédit ñu yombal euh, lan ko non mais qu'on finance les activités xam nga Sénégal dañuy financer des personnes on ne doit pas financer les personnes et les projets Projet yi gars yi dañu photocopier rek nga def si clé wala def say document yóbbu mais nañu dem ba ci barab yi nit ñi nekk secteur d' activité yi ñu xam ne borom bitigu mbagg boo gis xool ba magasin na ca ah, nga xool ñi nekk ci activités yi nga accompagner leen encadrer leen gunge leen gis nga boo ko defoon gis nga réew yi nii gis nga on a vu euh, géopolitique mondialement euh, la mondialement la géopolitique dafay changer avec l'arrivée de Donald Trump d'ailleurs ñu ngi wax l'inquiétude de l'Europe mais li ci am solo mooy il est là pour les Américains. Mm-hmm. il est là pour les Russes. c'est-à-dire qu'il il faut que les Africains soient là pour les Africains. Mm-hmm. et notamment les Sénégalais aussi doivent être là pour les Sénégalais surtout les dirigeants fexe ba beau, nga Sénégalais se sentent Sénégalais. ni mm-hmm. étranger même dans la location da nga gis ne Sénégalais lui loué sax étranger bi je leen gën a Sénégalais mais quand les Sénégalais ne se sentent pas Sénégalais ils font le jëm. Ils mi mis sa suuf sa ah munoo fexe ba yow tey gan gi moo la fi gën a à l'aise mais lolu frustration la ba poussé ñu bari ñu dem d'où l'importance les nouveaux temps du pouvoir ont du pain sur la planche de sorte que génie yi nga xamante Ousmane Sonko mi ngi ko bari ki dem moy richesse bi moy or moy jama li ñu am yëpp moy jeunesse bi da ci am solo c'est-à-dire que ndaw bi nañ fexe ba encadrer len accompagner len gunge parce que lepp du école jour férié bi dé takki cravate costume taxul productivité am. dédé un Sénégalais n'est pas productif li ñu war def moy fexe ba. Nous nous ñi nga secteur informel pourcentage de l'économie Sénégal ci ëpp de la fonctionnaire sax Il pourtant Sénégal nous avons yëpp fonctionnaire état bi carburant carte carburant véhicule de euh, logement de fonction un véhicule de service un gardien un logement un tout. avons ñi nga xam que ñoo d'où l'importance ma saluer les les les tenants du pouvoir bi ñee dañu dañuy politique bëgguñoo yóbbu moyen benn état c'est-à-dire ni ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo di les couches vulnérables ak ñi nga xam seen loxo jotu seen ginnaaw euh, abi bon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ngeen gën a góorgóorlu euh, rek gën a euh, jàpp gën a gëm liggéey bi te xam ne dana ñëw xëcc bu daggul dina dikk di fàttali rek ne tamit jigéen la boo xamante ni ñi bëgg tamit liggéey lu togg macha allah loxo bi laf cet ah bu la toggalee rek mën ngaa indi ñoom maamoon benn plan nag ñoom dañoo bëgg lekk. <laughs> moom laa ko bëgg a ma wax ko ne <laughs> ah? na doole tuuti. Mm-hmm. ma ne ko échec amul ku échec moo am. Mm-hmm. parce que jaay boobu ngay jaay ñu jëlee la fi nga nekk wala ñu dàq la bu mu tax nga découragé ah, na la yokk expérience ak yokk la fit mm-hmm. parce que nit suñu la jëlee ci li tey soo jaay li doxut bàyyi ko fa jël leneen bul bul ma sa découragé parce que da ciy bëri ndaw yoo xam ne maa ngi koy wax maanaam Afrique jógal taxaw nga toog di xoole ku jóg nga tooñ ko may ko doole il faut que ñun ndaw Sénégal ñu retourné waat dellu si waat Sénégal xex xex bi mm. pour mëna gagner gagné réew si le but est bon dal bu objectif bi nga am baxna mm. so c'est ben plan mu c'est ça mm. changer ben plan mais but bi bu koy changer bu la da ngay dem da ngay dem jagma propriétaire Alibaba mooy le plus grande entreprise du monde waaw il a essayé 100 fois 100 fois avant moo teg li nga xam ne ah Alibaba exemple il faut toujours nit nga bañ décourager exemple mais ma ci ñëw comme li nga wax ne tey dit wara euh, euh, Sénégal d'abord nous ñun nous la suñu Sénégal. Ousmane Sonko wax. Mm. pro russe ou bien pro français def ni pro russe ni pro français ni pro américain je suis pro sénégalais. Sénégal d'abord Nous à chaque fois dañ nous suñu référentiel Sénégal. dañ sommes ci PSE copier. Mm amul li ñuy wax les leviers de financement endogènes. mooy financement yi nga xam dañ koy jëlee ci biir réew mi di loot ko ci biir réew mi. macha allah PSE. amul li ñuy wax souveraineté souveraineté économique. jërëjëf PSE amul donc PSE. temps bi moo ñu xoj rek. <laughs> def ma rek renversement de la de la pyramide de croissance. amul ci PSE te loolu yëpp dafa boo ko boo ko gisee. Mm. mooy dañoo bëgg économie bi ñu jëlee ko ci suuf mu jëm ci kaw. macha allah dañoo bëgg mu jógee ci Sénégal yi delluwaat ci Sénégal. am na solo abi euh, dégg nga kon dina porter seen combat ci présidence euh, ci président de la République incha allah ci nguur gi euh, la rek nga jàllale sa message su joxewaale sa numéro ñi bëgg tamit def ay togg ak ñi bëgg liggéey nga nga jàllale ko. dëgg la war nañoo <laughs> jàppale trop. ndax man foog gisee fu ma jaar. Mm. Ah, dafa métti avant ma ñëw fii. je sais je sais bi ma nekk xale ba léegi maa ngi daan doole. Mm. parfois tam fu ma njëkkoon jaay dama doon jaay ndugg. Mm. te ndugg jaay ndugg moo gën a métti te yu bëri moo si nekk da nga dem jëlee bagage nooto indi ñoo jaayaat mais soo jaayaat tam waa mairie bi tam ñoom fu nga fu nga daal marché boobu xam nga marché mm, mm. jaay il faut ñu génn il faut jaay seen seen marchandise yi mais du du la ne euh, jëla nga tuxu dem fii nga war a nekk de mais ñu ngi ñëw fekk la bagage un million ñoo yàq ko yëpp te xamuñu bagage bi da nga kaa lepp xamuñu noo ko def ba am ko. Hmm. yàgg ko du benn yoon ñaari conseil. ñu bàyyi la nga joxe sa numéro benn conseil balaa ma def kii. 77 mu joxe numéro 77 681 61 77. waaw pour liggéey rek nag pour soxla rek liggéey de numéro <laughs> nee leen 77 681 61 681 61 77. 61 77. pour ñuy bëgg a togg. kese loolu moo ko tax a jóg ci événement xew ngénte Mamour booy takk ña ay eh, safar laa booy kii. Hmm? bala nga lay ñibbi <laughs> ku am programme waaw en tout cas mi ngi nii femme transformatrice la waaw. Euh, combat. Euh, boo koy porté da ngay porté collectif. waaw lay ëpp impact. que nga taxaw naan man. très bien. da mm-hmm. ngeen di fexe am. Euh, mbooloo collectif wala ngeen nekk association. Mm-hmm. bu ko defee même mm-hmm. boo nekkee président wala ngeen demee. da di taxawaayu ñun. mais boo demee taxawaayu man. sa cas spécifique du tax. say say say wala nekkee say ci ngeen gën a ay conseils la conseil bi mu la jox mais yow li nga fi wax yëpp man la ñoom ñoo ñu ko bañal carrément. déedéet déedéet association kenn du la ah, a. a. institution sénégalaise waaw liberté associé moom kenn mënu ko da nga xool ñi nga xam ne def association bu ngeen demee tey ci plateau da naan ñun waaw kay mais gën man parce que man kese su ma toogee wax sama baat bi day yeex quoi li mais boo ne ñun ci lay ëpp impact kon donc ngeen booloo abi conseil boobu jàpp naa di ngeen ko bàyyi xel ngeen def kuréel ngeen taxaw surtout mairie Grand Yoff maa ngi lancé également maire maire ba di docteur di kii maire Babacar Diop deuxième maire maire adjoint maire boobu deuxième adjoint maire bu Grand Yoff moom it mu jàpp ci liggéey bi jàppale bu baax a baax jigéen ñi nekk foofee ak góor yàlla yi jaay kafe foofu yëpp bëri nañ ci devoir libéré 6 ngir dañuy daan go daan doole gi ñu daan seen doole ndax mën nañoo defi leneen waaye yàlla xiir leen ci ñu daan seen doole kon nañ leen jàppale bu baax a baax bala ñuy dabu ji ñi leen di ñi leen dem nañ lijjanti ñi ci biir ba pare lijjanti ñi dabu <laughs> ñu dem jawar <laughs> tey dañ koy leb yow ci kër gi nga bokk après dinañ amaat temps parce que tey waxtaan bee neexoon euh, bàyyi nga tàggoo waaw ma nuyu Thierno Cheikh waaw eh, di taaw ci Thierno Mountaga daaxa taal xalif omérène bu Louga nga xam ni le 10 bi ci lay def ziar bi nga xam ne mi ngi koy defal baayam di waajuram muy xalif général des omar omarienne nga xam ni moom comme nu mu ne nu muy defalee ziar. Mm. waajuram boobu Thierno Mountaga Daha Tall mm. depuis mm. doomam jiite nga xam ne mooy Thierno Seex. noonu la koy defalee ziar tamit. fii ci Wakaam. amoon na solo jërëjëf Kër Sundior ah. jërëjëf Makhtar. waaw jërëjëf maa ngi nuyu. bëri moom. dëgg yàlla yéen woon naa leen benn député waaye xam naa bu lu ngeen mujjee am. <laughs> ngeen munaat rek ba beneen. donc di remercier aussi Kër vraiment am na solo xam-xam bi sell na te set na. Ah, di remercier yow aussi

wax ak yow nii. Mhm. may wax li tax ma di ko wax. Mhm. mooy dañoo eh, jënd lampe solaire tey ñëgu cent mille francs tey lañ ko mhm. fay. pour dëkk ba am solaire. aussi ñoo cotiser suñu xaalis. def fa ndox def fa courant def fa ndox. def fa tabax fa jàkka hmm. tabax fa juma ba pare aussi tabax fa école arabe bi nga xam ne ñun ñëpp fa lañ jaar donc loolu association bi def a a dem nuyu ñu baax sëñ Xaadim Ndiaye borom yàlla rek leen baax 30 secondes maa nuyu As as as borom babi bi. waaw ak tonton Lamine ñoo ñu jàpp si combat bi affaire yooyu. gën maa dooleel foofu noonu. macha allah ak sama gars yi foofu ñoom ñëpp. jërëjëf waay merci beaucoup mi ngi noonu jaajëf ab yi ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ah numéro bi nag bu leen ko ci wootee bu dul soxlawu leen liggéey day leer rek xam naa sànq Moussa Diouf gi tam ñu commencé di woote <laughs> jërëjëf euh, Mamoun ci réalisation bi ak Moussa ci son bi euh, ci kanam journal bi lay doon 19h ak 20h Adjaratou Ndeye Fatou Diop Diouf.